asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu ak tey baal ak ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk. dellu si nañ seen jataay yi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ci xarala gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Deko di nuyu waa groupe WhatsApp Tanim yi góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwunu kenn. mbokk yi tey taxaw sell bi mi ngi jëm ci waa APR sax laay wax euh, ci troisième mandat euh, ñoom seen njaatige li nga xam ne moo jiite parti bi ñuy wax APR di président Macky Sall bi muy laaj réew mi dafa am ay kàddu yu bari yoo xam ne daf ko waxoon kàddu yooyu nag bokk na ci li tax sénégalais yi fal ko waxoon na ne su ma faloo dinaa wàññi sama mandat bi nga xam ne sept la ma def ko juróomi at ngir li ma ci jublu mooy démocratie sax wi loola yàlla dogal bi mu faloo ñu bari di ko xiirtal ci naa ko bin lay fal falu nu la woon cinq ans sept la faloon falu nu la cinq ba sorti bi ma ci njëkk a seetaan Moustapha Cissé Lo am na lu mu organisé woon booba yàpp naa ne président toogagul lu mat weer wala ëpp ko ndaje moom bi ca président dikkee Moustapha Cissé Lo ne ko falu nu la woon cinq ans sept fa mu ne ko Moustapha maa ko waxoon sept ans yi laay cinq ans def loolu bu ci kenn jéem a coow cinq laay def loolu ñuy dem ba ci yàgg ñu ne loi bi nee na mënta def sept ans mënta def cinq ans lay def Sidi Lamine wax na ci wax ju bari bam mu cay wax loolu lépp loi bi prévéru ko prévoir na ko prévoiru ko li gën a fort mooy kàddu te loolu moom moo ko waxoon moom bu fekkee ne parce que kii bi loi bi mayoon na ko loolu it nee na kii moom na jël ne li ma loi bi mayoon maa ko moom mayaat naa ko askan wi cinquant laay def ñu jóge fa ñu daal di fal ay def li nga xam ne moo di constitution bi ñu tëggoon ko ba jamono yooyu ñu ne wii ak non ba Idriss sekk nee na woon ku ne woon wii ku ne wii da ne wóoy loolu yàlla dogal ñu dem li ma bëgg a wax fii rek tey ci kàddu gi nga xam ne président waxoon na ko ak kàddu fi mu toll woon ci ñu jëkk ña ba ci jigéen ba ca ceddo yi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi nekkoon fi ay ceddo seen kàddu moo leen jaraloon ñuy xeex guddi ak bëccëg seen kàddu moo leen jaraloon seen tànku kanam bu xasee ba taxaw dem seen du nu dellu si seen kàddu seen tànku seen tànk ba nekk kanam du fekk si bi ci ginnaaw bi ci ginnaaw mooy fekk ba ca kanam ndax xas nañ ne waaw ba ci yonante yi sax dana wax ne bu nu xasee ba sol seen mbubbu koŋ bay waaj xare amatunu droit waññeeku ngir neenan woon waaw ba xare ba dem bokk na ci kàddu ceddo yi fi nekkoon dañ ko danoo fonkoon seen kàddu ba Lat Joor mi nga xam ne sax kenn la woon ci ñi nga xam ne ay buur lan woon fii ci réew mi wala dara bi mu xasee ba ne waaw ñëwee ci sëñ mag bi mu wax ko mu ne ko sama kàddu xas na ma raw kon kàddu ñi fi nekkoon te gëmunu diine sax seen kàddu dañ koo fonkoon kon nit ki kàddoom mooy tax ñu mën koo respecté kàddoom mooy tax ñu wormaal ko kàddoom mooy li nga xam ne lu dul kàddu goo xamante ni kàddu gi jërte deltu ginnaaw mooy kàddu goo xamante ni la ca nekkaat lor la bi ngay signé kàddu gi daal danga ngaa woon ne bu nu àggee ca dat sàngam dinaa def te loo nga bëgg def loola doonut lu gën mais lii doon na lu gën kàddu gi bañ na ko ba léegi ñoom waa wala ñi nga xam ne ñooy Alioune Tine seen campagne wala seen euh, yëglu yëpp dañuy wax ne jàmm moo gën troisième mandat te it kon président Macky Sall moo waxaat fii bin ko bi muy dem ba deux mille dix neuf di bëgg a jot mu ne man mandat bii mooy bin ma fale beneen mandat bi ci des mooy doon buñ ma falaatee mooy doon boobu ci laay jeexale sama mandat kenn mënta fexe ba ma passé mandat boobu ñu demaat président Macky Sall dégg nit ñi di coow naa ko waa troisième mandat loo ci wax mu ne leen troisième mandat ku ma fay xaar doo ma fa gis man réew mi daa mel ni wax da leen a neex liggéey mooy li gën man troisième mandat ku ma fay xaar doo ma fa gis loolu xanaa leer na li xale yi wax xanaa leer na ñu yi benn journaliste laaj ko ne ko waaw ndax yow di nga def troisième mandat président mu ne du ma ne wii du ma ne non ndax su ma ko defee su ma waxee ne dinaa ko def wala du ko def samay. collègue yi nga xam ne ñooy ñooy état bi ñi ma war a jàppale duñ liggéey ñu demaat ba jamono yënguwaat ñuy wax ci troisième mandat président leen troisième mandat ni ma koy misaale mooy julli tabaski la ñaari ràkka rek la amul ñetteelu ràkka du julli timis xanaa leer na ñu doxati tuuti ministre am bu ñuy wax euh, euh, Abdoulaye Jonn di premier ministre ñu laaj ko ne ko waaw troisième mandat mën naa am wala mënta mu ne troisième mandat mënta am bii ñuy falaat président mooy buñ ko falee bu jeexalee jeexal na amul lum ciy dolli amul ma àggale jàkk amul ma àggale sànc xanaa leer na ñu demati tuuti ñu gis kon jigéenam ju falaat premier muy Mimi ñu ne ko Mimi ndax troisième mandat mën naa am wala mënta am mu ne mënul am loolu moom bu ko kenn xalaat troisième mandat mënut am moom la mu waxoon ba léegi wax dëgg yàlla mu ngi koy respecté ak askan wi la ma waxoon mi ngi koy respecté ñu doxaat tuuti ñu gis ku ñuy wax Seydou Gueye bokk ci APR ñu ne ko Seydou ndax troisième mandat mën naa am mu ne troisième mandat am bii mooy mandat bi nga xam ne moom la président dese bu ko jeexalee jeexal na ah, xanaa leer na ñu demati ñu gis ku ñuy wax Omar Youm bokk ci APR ñu ne ko Omar Youm ndax troisième mandat mën ngeen koo am président mu ne mënu koo am. loolu moom jeexal nañ ci troisième mandat moom président mënu ko am kenn mënu koo am ñu dikkaat ci ku ñuy wax Seydou Gueye Seydou usmaan Seye di avocat ñu ne ko waa Ousmane ndax troisième mandat mën naa am mu ne déedéet loolu moom mënta am mënta am mënta am ah li defe naa léegi mu leer ñu dem ci ministère bi nga xam ne mooy ministre justice di Ismaïla Madior ñu ne ko troisième mandat ndax mën naa am mu ne déedéet mënul am loolu moom bu ko kenn jéem a xalaat sax wala mu koy jéem mënut am ah xanaa lii dëgg yàlla ay wolof yu leer nañ ñi la benn yoon lañu ko làkk li ñu ci làkk ci français daal te sama classe gi déggunu français mooy niil nepp ak faire troisième mandat loolu moom waxaal boole waale na loolu mooy kon mënul am jigéen nit ñi nag kàddu moom dafa doon loo xam ku ko génne ci nit boobu nga génne loo mën a génn ñii di waxaat di ay Ablaye Daouda Diallo ak ay farbaak ay teres Faye ak ay ñëpp naa moom la ñuy falaat li nu bëggal mooy seen kilifa gi nga xam ne ñoom ñoom ñoo nu ko gën a jege dëgg la ñun sénégalais lañ waaye président moo leen boole ci parteem ñu ànd ak moom di liggéey lii président doon wax bi mu koy wax ñi ngi ko dégg ñoom ñu dégg kon li nu bëggal seen président mooy la nga waxoon génnaat ci kàddu yi nag dafa indi woon lu bari ci réew mi ba naa président 2019 bu 2012 ba muy xëccoo réew mi Ablaye Wade ne day dem moo ko noonu Ablaye président del sellul sa xel ñii lay jay di la wax troisième mandat mënoo ko te boo ko defee du la jig ba mu ko defee jigu ko Ablaye Wade la mu waxoon baat bii bokk na ci li ko firi li ko li ko wàcce ci réew mi ab lay Wade bokk na ci lii ne loola maa ko waxoon waaye maa waxoon wàqet boole waale ci ne digge moom amul problème ki niy dig ngay gëm loolu moo am problème ah xale ya dagg kii ba bi nuy campagne ñu naa maa waxoon wàqet maa waxoon wàqet yanaa maar jóg fii ñoom ñëpp ñu jógandoo ñu campagne loolu gañe ko campagne bu simple lan def sax gañe ko loolu moom képp koo xamante ni dugg nga ci ne troisième mandat di nga ko def wala kàddu kooku bu soobee yàlla incha allah sénégalais yi fi nekkoon rek ñoo fi nekka beneen bi ci desaat gis nga kàddu moo daan téye jigéen at ba at ma dellu si ku dikk di ko labati mu ne sama kàddu nga dem ci yaayam mu ne sunu joxe na sunu kàddu kooka delluwaat daa nga gis fii ci xale yi jigéen ñi sax da ngay dégg jigéen naa la génn na maag diw sàngam sept te sept ans yooyu ñu génn dara waralu ko lu kàddu gu nu amante sept ans ñu soog a marié te kàddu googu rek lan respecté ay góor yu bari dikk ku dikk ñu ne la ah man de bañuma la xëy bu ma diine bu ma ngor waaye damaa joxe woon sama kàddu te gor kàddoom rek la am jéggal ma rek loolu rek la waaye yow de kenn du la bañ keneen dikkaat ñoo ñu ne ko ah yow de fi nga bokk baax nga am nga alal am nga diine am nga yar am nga lépp waaye man de damaa joxe woon sama kàddu walaay bu ma joxe woon sama kàddu booy dem jabar ngay yóbbaale yii yépp daana xew ci réew mi commerçant bi daan jaay daana wacc marchandise am lu mat ëpp at wala mu ko ay weer boo dikkee ne ko am nga di mu ne ah am na fi da daa am ko fi bàyyi woon xaalisam ba ma jaayoon ko mu ne ko waaye jaay ma ko rek bu dikkaatee di nga amaat marché mu ne ko ah, sañu ma ko de kii jox na ma xaalisam ba ma lekk ko kon sañu ba ma jël ko sañu ma koo jaay keneen dikkaat ne ko ndax am nga nangam mu ne ko am na fi de waaye de lii de daa am ko fi jox bàyyi woon ab xaalisam gisaatuguma ko ba léegi mu ne ko jaay ma ko rek lee man mën naa laa yokkal sax mu ne ko déedéet loolu koy dara jëralu ma ko dama ko fi bàyyi ba mu ñëw mbokk yi jikko yi yëpp ay jikkoy Sénégal la woon gis nga kàddu mooy li ëpp doole gis nga ab sëy sax buñ koy takk sëy bala nu ko signé ci kayit yi naa kayit yeeg dem ngeen tribunal ak yëpp kàddu dafa dëgër ba noppi ñu soog koo def danoo def kàddu ba ci jàkka jumaa yi bu ñuy mayee jàkka yi dañuy mayee ndaw si ba noppi soog koo wutal ay kayit xanaa kon ñu ne woon nan wut kayit yi ba noppi soog a maye dañuy maye ba noppi te maye ga génnut ay kàddu maa la ñaan dama bëgg kii ñu ne ko may naan la ko ci farata yàlla kii na ko maa ngi ñaan diw sàngam ci sunna si yonente bi faratas yàlla ak sunna si yonente bi ñu may ko kon kàddu ku ko xeeb rek dangaa toll noonu maanaam kàddu ku ko xeeb rek dangaa toll dangaa toll noo xamante ni nu xeebu nga maanaam ku xeebu nga loolu kii doon wax naa takku suuf ku ñuy takk takku suuf rek dangaa suufee waaye képp ku woyofal kàddu képp ku ko jéem a biccingal képp ku ko jéem a daani cim réew daanaka amatul lara luñ fay def kàddu moo yore lépp kàddu ci lan daan yeewa as gor kàddu ci la gor daan yeewu kàddu ci la nit daan tëdde jigéenu ndeer ya daan woon kàddoo leen daan woon kon ngallaawaay nan nu dimbali ci troisième mandat waa APR troisième mandat mënul am troisième candidat mënul am ñaanal leen mag Sall gone la liggéey na fi ba ñëpp xam ne liggéey na fi kon nag na li mu waxante woon ak waa senegal waa Sénégal fal nan ko falaat ko fal rakkam ba mu ñu doyal ci moom balam nu waxoon mu agsi ngalawaay nan ñaanalante ci jàmm moom mu dem ak jàmm ak njabootam ñu nit ñu dem ak jàmm gis nga nguur kuy wax ne dolli leen ma jox leen ma joxaat ma lan la jox daay danga koo jaaralewut yoon waaye gis nga jiite ni mettee doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg coono guddi coono bëccëg loolu ku sàmmanteeg àq jooju doo talal laala lan la joxoon bu àggee ci kii ba doo ko laajaat kon mbokk yi ñu ngi taxaw fii di ñaan yàlla may nu wérug yaram ak wérug diine te may euh,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 Tanim TV yéen rekk la fi nekkar ngir ay xibaar yu weer te wóor